internet yi dal leen ak jàmm coowal Sonko Adji Sarr wi leen nag ab audio fuité ci xam ngeen ko fan yi yëpp ñu ngi koy daal di nag waxtaanee boobule audio ñu ne nag ab fabrique la bu ñu sukkandikoo ci maître El Hadji Diouf démb moo nekkoon invité bu nag quartier général ca TFM moom maître El Hadji Diouf dëkk ci daal di nag défendre ki nga xamante ni mooy Adji rabi Sarr mu nekkoon avocat wam ne nag audio boobu la ñu daal di nag ne dafa fuité Mamour Diallo ñu ne nag baatam daf ci nekk benn fabrique la lépp dañu ko daal di nag euh, monté avocat bu masseuse bi di Adji Sarr euh, wax ci nag coowal Sweet Beauté gi ñoom daal di euh, di opposé Ousmane Sonko ak Adji Sarr prononcé wu ci audio bi nga xam ne dafay révélé benn discussion secrète bu ñu attribué Mamadou Mamour Diallo ak clientam bile moom mi nga xamante ni nag moom mooy maître El Hadji Diouf daal di ne nag xaw ma ba xam audio bi c'est authentique waaye nag benn fake news la ndax nag ak lu nekk mën na daal di am am na ay nit yoo xamante ni nag am na nañu laboratoire ngir fabriquer ay mensonge ak itam diversion waaye nag hors sujet la te nag awma jot le démb la ko xamle moom Maître El Hadji Diouf bu ñu sukkandikoo ci suñuy source waaye nag euh, di wax itam ne si enregistrement bi en question même bu fekkee c'est authentique maanaam même bu fekkee dëgg la amul dara li prouvé nag am na euh, complot bu ci daal di am euh, ci nag contre Ousmane Sonko loole la daal li muy wax xoqatalul raful def ci daal di wax mel ni ku am lu ko ci leer moom Maître El Hadji Diouf yokk ci itam ne nekkul euh, avocat bu Adji Sarr ngir focaliser wu nag ci ay audio mais nag ngir daal di koy nag défendre ci benn affaire de viol l'essentiel mooy ko Ousmane Sonko dafa war a dem euh, wuy ji justice euh, ca kanam juge d'instruction ba moom robe noir bi rappelé itam ne nag jouru procès bi nag sénégalais yi lépp na dal ji nag leer ci ñoom ñi nag ñu daal ji nag wax mbiree dal ji nag dem pëng jeex ñu jàll ci leneen ndax nag c'est situation boo xamante ni ça n'a que trop duré dafa daal di nag yàgg ci Sénégal jamono ji atum yàlla te nag ñenn ñi sax ñu ngi naan euh, moom Mamadou Mamour Diallo bu fekkente ne moom moo nekk ci ojo yi na ñaan yàlla nag lii bañ doon dëgg wala mu nekk fake news wala mu doon ay enregistrement ndax bés bu ñu daal di nag montré ne moom Mamadou Mamour Diallo ak Adji Sarr ñi ñoo nekkoon ci audio bi di wax daanaka dina saf sàpp ci ñoom ndax nag ñi nga xamante ñoom ñooy organisation droits de l'homme ak nag société civile bi opposition ñëpp dinañu daal di nag booloo daal di dem euh, porter ji plainte euh, ca nag tribunal ngir li nga xamante ni euh, moom mooy nag wàllum li ñuy duppee nag wàllum crime lañ leen di di nag doppee muy nag tentative